kon suñu buuru àddina yi nañ ci bàyyi xel ku ñu fal président fal la ministre nga nekk fi sa jama jabar samay goro samay doom sama patrie wala suma parti ah képp ku moytuwul loolu bàyyoo sa xel ci sa askan ci sa xeet ci sa giit boo deewee di nga teew foofale te mbokk yi képp ku teew yow mu diin bu la yàlla yërëmul fële nga jëm yàlla nañ ci yàlla musal kon nañu bàyyi xel bu baax population yi du ñu seen population yi ñoy chef population yi ñoy kilifa da ngay dégg ñu de toute façon force restera hein, à la loi force restera aux populations Voilà, à population lu ñuy aux populations kon au peuple donc force restera au peuple peuple bi rek chef président du chef ministre du chef keneen du chef président ci xaalisu population bi lañ koy fay ministre bi ci xaalisu population bi lañ koy fay attaché yi ministères yi fonctionnaires yi ci xaalisu population bi lañ leen di fay kon nañ fi nekkal population bi waaye nga am fit génnee arme génnee ay soldats ne taxaw leen chargé les chargé hein chargé les journalistes même les presse. koo xam ne boo dawee moo la war a dalal koo xam ne boo tiitee moo la war a jokk koo xam ne moo la war a dindil fitna taxaw naan dóor leen gaz yi ci kaw gaay yi dóor leen même bu dee journaliste kon mbokk yi fu ñu jëm nañu delloo si xel yi nguur neex na waaye fii lañ koy bàyyi seen bàyyi newuñoon wuur seen bàyyi nawuñoon buur ne réew mi du lu ñuy donn du lu ñu donn ci bàyyi du lu ñu donn ci ndey du lu ñuy seddoo du lu ñuy miiraas nañu yërëm askan bi nañ leen utal liggéey nañ leen jox ay liggéey nañ leen jàppandal ñu mën a am koom wallahi nit ñi sonn nañ ñu mel ni ñun nga xam ne dañuy ubbi suñu kër di dalal ay doomu aadama ñun ñoo xam fu doomu aadamay toll wallahi dangay gis koo xam ne dafay naan maa ngi def ay fan sama kër bu ñu ndékkee du añ nga gis koo xam day naan maa ngi def ay fan su waa kër du ñu reer wallahi yàggul dara kii maa ngi koy wax keroog mu woo boroom jox ko lu duuf daf ma ne ma sëriñ bi mu ne ma sama kër jigéen la mu ne ma sama kër damay nax samay gone damay xëy jël cin def ci ndox teg ci taal wallaahi mu ne nii laa leen di naxe di leen naxee di leen naxee ñuy jooy di jooy di jooy ma dem ci boutique bi jënd mbiskit jox leen ci jooy gi la ñuy nekk ba fii lañuy jaar nelaw bu bër setee ma daw dem dàqwaar pour jox leen lii mu ngi ci réew mi képp kuy naan xiif amul ci réew mi dafay wax lu ko neex képp kuy naan ci réew mi feebar faju am na fi waxuma amu fi de